di leen wax nii fa tabarakallahu seen xarit seen soppe sëriñ Ibrahima Dia boroom jinne yi borom tawféex fa tabarakallahu moo leen di ñaanal jàmm ak sutura ñëwaat ak yéen di waxtaan ak yéen ngir ñu laayante biir si wàllu xam-xam fa tabarakallahu ndax fa tabarakallahu lu ma doon wax rek suñu borom subhaanahu wa taala daf ñoo jox xam-xam mais xam-xam bu mu ñu jox fas yéene wuñ kaa denc dañoo fas yéene di ko ak doomu aadama yi képp kuñ si mën a jàppale ñu jàppale ko si ndax fa tabaarakallahu ayuma rajulin ataahu llahu alman fakatamuhu yàlla rëbb na bépp waay bi nga xamante ni jox na la xam-xam fakatamuhu nga nëbb xam-xam boobu kon tey jii suñ doon wax sax nit ñi di wax lu ne ñun duñu lijjanti nit lenn la ñuy lijjanti muy lii ñuy wax mu lenn suñu borom subhaanahu wa taala lii la ñuy digal motax fa tabarakallah jamono bi gis nañ lu bari xew nañ ci rew mi xew na ci rew mi fa tabarakallah togon na fi wax ni li ak li ak li dina xew ci rew mi yàlla dogul ñëpp tek seen beut mais teewul suñu gisee lo xamanteni yàlla dogal na mu wan ñuko ko ndax am na ñoo xamante am aynul yaqin dañuy gisee fu sori di xame fu sori mais yàlla may na ma loo xamante damay gisee fu sori di xame fu sori jamono bi suñu borom subhanahu wa taala wan mu lu bari ci réew mi fa tabarakallah waxnako ñëpp tek ko seen bët mais doonu lo xamanteni pour bëgg buzz comme ni ko gars di waxe wala pour bëgg daraja ndax bu dé daraja rek arxuwaan teddal nañu arxuwaan teddal nañ teddal nañ ndax suñu lépp arxuwaan la fa tabarakallah gisal xex yi fi am gisal gendarme bob fa tabarakallah xaw ma homme de tenue bob fa tabarakallah muhammad Ka gisal loxo bi numu dagge fa tabarakallah ta togna ay télé ki télé ne kep ko xamanteni homme de tenue la su ñëwé si man seigne Ibrahima Dia jinne dina ka may tul paga ak tul fetar fa tabarakallah tay ji yàlla su dogalon Mouhamed Kamo mu ñëw si man incha allahu rabbana heure bi kenn waxatul fa tabarakallah li dina ko si yàlla yàlla dina ko si musal so gisé nak ma am yene di ka may homme de tenue ndax tay ji ñom ak ñun ben lañu. ndax lu ñu sol tëni laa faddala li ahadin ala ahadin illa bi waa tëni boobu ñu sol ñu sol suñu garaam boobu kenn gënul kenn ku gën mooy ki nga xamante ni ragal nga yàlla jox nga yàlla yelluwaayam beneen bi xam nga tey jii ñun suñu liggéey bi nga xamante ni dañ siy liggéey si lañu ñu war a mën a jàppale suñu moroom ndax tey jii mënoo toog ni xam nga yàlla te doo ko jox àkkam tey jii xam yàlla bi ngay xam yàlla mooy yàlla lii nga xamante ni digle na ko da koy def li nga xamante ni yàlla tere na ko da nga bàyyi tey ji arxaan bi ñuy jëfandikoo dañoo xam lu si yàlla wax moo tax ñu siy bëgg di jàppale doomu aadama yi paa nax ngisal fa tabaarakallaahu gisal président Macky Sall discours bu mu def fa tabaarakallaahu lu am am solo la si réew mi parce que nit ñi ñoo ngi la doon daal ñoo ngi la doon xaaree feneen mais fa tabaarakallaahu damaa kontaan parce que da ngaa ñëw dalal xelu nit ñi fa tabaarakallaahu wax lu fi am kon yàlla na la yàlla fay macha allah rabbana ndax réew nit ki soo si nekkee fa tabaarakallahu da ngay doxal jàmm ak salaam ndax yawma nad'u kullu unaasin bi imaamihim ndax tey yi njiit dafa nekk loo xamante ni suñu borom subhaanahu wa moo koy def si doomu aadama mais yàlla su la defee njiit fa tabaarakallahu lépp da lay wuy si mais lépp su la wuy nag dafa am noo war a doxalee tey jii Macky Sall moom kese du njiit si dëkk bi de képp kuy borom képp kuy oustad kepku nga képp kuy serigne njiit nga fa tabarakallah képp ko xamanteni ay nit botu nañ sa ginnaw yaakar ci yow rek kon yow njiit nga te nit ki so nekké ci aduna da ngay doxal doxal suñu borom subhanahu wa taala ndax njiit bisu pench suñu borom subhanahu wa taala dalay wo ba nga ñew ne la nan nga yoré woon njiit da ngay gis ño xamanteni dañuy dem ba bisu yowmal khiyam nan yalla lima asartani ama qad kuntu basira yàlla lu tax ma ñëw si àllaaxira di gumba te àdduna maa ngi doon xool normal yàlla ne ko ba ma la joxee nguur nguur gi noo ko yore woon est que xam nga ni bisu pénc suñu borom subhaanahu wa loxo day wax bët day wax lépp day wax si doomu aadama biir dina ne maa lekkoon sàngam diw moo dugg loon sama biir sàngam walla maa sàccoon sàngam ولما جلون على لسانهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمونها أيديهم وتصعد أرجلهم بما كانوا يكسبون يلا انت يلا مسل موتاخ تايجي كيب كي ووتو فين سي ريومي فتبارك الله داغا خمول تا يلا يلا مسل سي جاهل نخ تايجي سو خامي لوسو فيدما فيدنا دو تال فيدنا نخ كفا بالمري اسمن ان يحدث بكل ما سمع يلا انت يلا مسل kon président Macky Sall sa discours amna solo yàlla la yàlla aar la fa tabarakallah di wax wàllu homme de tenue nañu ñew man Serigne Ibrahima Dia wax lol fa tabarakallah comme nombre yi ngay gis comme nombre yi ngay gis fa tabarakallah soko xasse batak ken dula jam bu mu dugg paaka du la mënal dara walu shaytan dula meunal dara histoire dula fek fen fa tabarakallah xaaral ma wal len ko sha allah rabbana xam nga man sëriñ bi nag su ma neexee takk ko su ma neexee du ma ko takk su ma neexee mën naa ka teg ni essayé fa tabaarakallaahu ndax xam-xam day leer macha allah. ndax fa tabaarakallaahu lii defe naa kenn du ko laam-laame fa tabaarakallaahu ndax doon na loo xamante ni lu ma def defati ko ndax tey ji arxaan dafa am lu mu wax tey ji sooy werante lii ndax dëgg la wala ndax du dëgg fas alo ahla zikri in kuntum laa taalamuun yàllaa ko wax fa tabaarakallaahu lii rek bëgg réew mi am jàmm ak lii maa ko garanti ni fa tabaarakallaahu homme de tenue ku si ñëw mu leer na ni ma homme de tenue nga fa tabaarakallaahu dama la koy may ak a neexoon nag maa xam njiitu homme de tenue fa tabaarakallaahu man Serigne Ibrahima Dia borom jinnay ma yëkkati ay tul jox leen ko ñoom ñu fi nekkal ñun ñoo nekkal fii kon réew mi yàlla am jàmm macha allah bisimilah. ñëwal ñëwal ñëwal. fa tabaarakallaahu kon comme ni ngeen ko gisee nii fa tabaarakallaahu xam-xam day leer fa tabaarakallaahu lii nag defuñu ko ngir di si nabu wala ngir bëgg tiitaru wala ngir bëgg nit ñi xam ma non non man arxuraan teral na ma ba pare fa tabarakallahu ndax sama lépp arxuraan la man li moma doy fa tabarakallahu muy arxuraanul karim fa tabarakallahu li ma def nak fa tabarakallahu am yene nak rew mi am jam ak salam ndax tay ji yene ñu fi nekkal fa tabarakallahu gisal muhammad ka li dal ko bu doon keneen la dal tamit du la neex bu doon sa mbokk la dal tamit du la neex fa tabarakallahu kon kep kuy am de tenue ñëwal seet si sëriñ Ibrahima ja borom jinne yi mu defal la protection yu mat sëkk fa tabaarakallaahu moo xam keneen ki nga xamante ni fa tabaarakallaahu moo ngi si biir réew mi nekk om de tenue nag fa tabaarakallaahu ndax tuli moom fa tabaarakallaahu yéen ñëpp a si xaj surtout nag homme de tenue yi fa tabaarakallaahu ndax fa tabaarakallaahu lu nekk ngeen gis mais fa tabaarakallaahu du lii kese la ñu yor ci li nga xamante ne mooy protéger doomu aadama mais tay ji dañu xamni rew mi suñu rew la fa tabarakallah dañ si partager lepp li nga xamanteni lu baxal tamit tamit sha Allah rabbana fa tabarakallah tamit di wax zeni man ngeena am lu len metti mais waro len yak ndax dina yak, nit dina yak ba yak alalu jambur tay ji yak jamono bi yak nañ fi alal yu bëri yo xamanteni president Macky Sall yonam nekkusi te histoire la rek nit ku nek da nga wara dem ak sa xelu bop mais yàlla ñu yàlla musal si xeetu yàqu-yàqu yooyu ak jamono bi fa tabaarakallaahu ñi nga xamante ni fa tabaarakallaahu yàlla dafa dogal ñu génn àdduna si xeex bi yàlla na yàlla jagleel yërmande jëmale ko si ñoom bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu lii neexul si xol fa tabaarakallaahu man damay am lu ma metti torop torop torop si réew bi benn damay toog suñu borom woon ma lu garaaw lu daase mais damay toog jël suma kurus ñaan ko yàlla ak ñeneen ñu dul man am xam-xam yàlla di leen wan ñuy toog seen rukk tamit di ñaan yàlla tey jii bu doon nit ki yàlla dalay wan rek nga toog noppi du am sens da ngay dee tamit yàlla duma la mais yàlla nañ yàlla musal fa tabaarakallaahu di leen wax ni képp ku si bëgg tuli muy am de tenue yi numéro yaa ngi noonu affiché képp ku bëgg tamit leneen lu dul tul numéro yoo numéro yaa ngi noonu affiché fa tabaarakallaahu sëriñ Ibrahima Dia borom jinne yi borom tawféex fa tabaarakallaahu ñëpp la fi nekkal yàlla na yàlla def jàmm si réew mi def fi sutura fa tabaarakallaahu président Macky Sall ñoo ngi lay ñaan fa tabaarakallaahu lii kaddu yi nga joxe amna solo lol lol mais nga gëna doli wat kaddu yi pour nit ñi fa tabarakallah seen xel gëna mëna dal te li nga xamanteni dig nga ko nak doomu adama yi fa tabarakallah nga fexé nak ba ñoom ñepp jot si fa tabarakallah ñoom ñepp nak suñ ko joté nga défé ko comme ni nga ko waxé fa tabarakallah di nga am fay yalla tamit di nga am fay nit ñi fa tabarakallah ndax amna nit yi nga xamanteni ku leen defal terang du ñoom kasse nga nga leen defal terang su boba dinañ la ñaanal yalla yalla gën doli jam ma sha allah kontaan nañ lool sha allah